nañ ko daal de defee rek saa su ne xam ngeen ni plateau bi duma ci wéet duma ci ànd ak sama góor sama xarit ah sama séeréer bu baax bi <laughs> comment tu vas. <laughs> sant alhamdulilah rahmatulah Diallo Poulo Dié ah. ma ci profité nag mi on bandiraɓe pulɓe. da ciy baax ah, waaw mi salmini on. <laughs> ñibbi nga ñibbi nga. Ah. dellu nga seen dëkk. waaw dellu naa dëkk. noonu baax na muy mm-hmm. nuyu tous Col d'Oie et Col d'Oise maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak tous les Halpulaar ah. suñu jaam yooyu di ñaanal ah samay buur uh-huh. am na solo kon maa ngi leen di bëggee daal di nuyu képp ku ñuy seetaan di leen ñaanal jàmm di ko saaku ci ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 2 décembre 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy dooree ko yëglikaay bi nag tey xëtam mu njëkk moom la xëy gën caa fes bokk na ci combat bi nga xam ne nii maanaam moom la ñëpp di waxtaane muy diggante Siteu ak Papa Sow ka xëy nag tey di ca wax moom moo di Ndiouga Dia di entraîneur wala boobu di di di ab technicien nekk fa nga xam ne moo di ca parcelle secret bu ñuy wax rock énergie moom daal moo xëy tey di wax ci ñaari mbër yi ñaari mbër yi nag ñu ngi leen wane ñoom ñaar ku ci nekk yaa nga taxaw ak subulu son yor lu weex waaye Père Ndiouga Dia daal nee na boo bëggee dégg-dégg seen combat xeex moom mënee su ko cee bañ faw dana ca am jàpp na ne tamit combat bi ku gën a gaaw yaa koy gagné ne na ko koo xam ne daal rapidité ñeel na la ci boobu bés moom boo ko ca defee dëng ca génna ndam lu set set wecc loolu su samay wax njuga ja moo ko xëy wax mu mel ni beneen combat boo xam ne nii ñu ngi ko doon wax waroon dox ci diggante Yékini Junior ak jën kayre combat ba nag yëglikaay bi xëy na daal dina boo bëggee dégg dëgg booba combat moom daa mel ni day lépp mu ngi fa bëgg a doxe tab bi géej ndax nag la ko waral mooy jën kayre daal fi mu nekk nii mook estafam la ñuy xaar mooy Siteu ak Papa Sow ku fa daan daal la ñuy xaar moo xam Siteu la wala Papa Sow ñu lekk sab avance yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu balaa ñoo yegg nag ca bisub Siteu Papa Sow ca samedi ja ka nga xam ne nii daal moom moo di bu bëggee dégg dëgg caatu Daawuda Fall ak ka nga xam ne moom moo di Kaaw Gourdin daal yéenekaay ba ñëw na tey di ca wax ka xëy nag di wax ca ñoom ñaar xam na leen ndax moom moo di ka nga xam ne moo di albarka kayre ndax ku ci ne bëri na ak yow nga daan ko moo tax nag xëy na di jàngat boobu combat ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mu nga xëy di nu wax loo xam ne daal loo xam ne ñaaw na tey itam bët bu ko gis danga nga ko ñaawlu lool lool boo ko dégg ak sa nopp sax du la neex waxatuma laa nga di ko teg bët di ko gis mooy arène nationale bi nga xam ne ay milliards 32 milliards ko liggéeye ngir waa lamb ngir sax réewum Sénégal ndax ñoo koy jariñoo bëri ñoo loñ lool tey itam nag des fois ñu fay gis ay mbir yoo xam ne yu ñaawa ñaaw la yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ci image boo xam ne bu salte bu doy waar maanaam ay sees yoo xam ne maanaam daal supporteru mbëri ñoo koy damm di ko sànni moo xam seen mbër daan wala mu daanu waaye daa mel ni nag seen seen ru leen caa ndax nag moom ñoom saa buñ ko defee rek mu wàcce ko ci kaw mbër yi ndax nag yëglikaay bi ne na seen seen moom la muy def lenn kese la nar wala lenn lay def fi mu nekk ni mbër mu ko ci def say supporter def ko ci la CNG di def mooy reliquat la nga dese woon CNG moom lay teg loxo wala nga ñëw nga defaraat CNG benn par benn ba pare lu caay xew door caa xew yëglikaay bi moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu koo xam ne moom arène nationale booba dimanche ji nu génn bëre na fa ba ñàkk la ko ñàkk loo mooy ardo la dem ñu maanaam dafa gaañu ba mëntu la bëre ci bët muy zos zos nag moom la mu xëy jiñ gaañu gaañu ba ca record nee na lenn la Alioune Seye def nee na daal du question ab la ma dóor ne na daa benn mbir boo xam ne maanaam lu mel ni bant wala objet boo xam ne daal moom la ko jamaale ci bët moo tax nag ne loolu moo indi blessure ba jos nag loolu moo xëy tey wax ko fa nga xam ne moom moo di ca journal bi nga xam ne moo di record Pape Abdou Fall moom démb def na point de presse ci lu jëm ci wàllum si ta Papa Sow ca sécurité ba dajale ñaaru kawu mbër ya police ak gendarmerie ñëpp ñoo xam ne presse ba ñu nga fa woon assisté ak waa CNC la nga xam ne nii daal moom la fas yéene def ndax nag bés ba moo toll noonu moo tax nag sécurité ba moom nar ñu caa cof dara dañ koo nar a def sécurité boo xam ne daal bu mucc ayib lay doon maanaam avant pendant et après képp koo xam ne da ngay ñëw di seetaan Siteu ak Papa Sow nga mën a ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm promoteur ba daal dem wax na loolu fépp foo dem ci yëglikaay yi yëngutu ci wàllum làmb tey xëy nan yegganu boobu xibaar yemu ca moom Pape Abdou Fall jël na ay jeux yoo xam ne daal pour presse bi la daal di leen ko may ndax nag mu leen ko diggoon te olof Njaay mooy faral di wax dige bor la Pape Abdou nag la mu dige woon def na ko maanaam daal noonu na presse moom fi dajee ak ñoom dinaa leen may ay yoo xam ne na leen xàmme yéen reporter yi nga xam ne nag yéen ne ci làmb ji mel ni kon wax jam waxoon def na ko kon nag Pape Abdou Fall loola waay mën a wax daal la sëñ seex Mbacke waxoon rek noonu na man seex Mbacke lu wax mu nekk yalla ko na man na waaye man seex mbakke la mu wax nar naa ko Pape Abdou nag moom la mu waxoon nar na ko yalla dimbali na ko def na ko kon man Babacar maa ngi la naan jaaraama Pape Abdou Fall borom Paf production ci turu képp koo xam ne ab reporter nga bu yëngatu ci làmb ndax nag. ku ko def ku ko wax dong la bëgg rawatina nag jëf yu baax. ñu noonu Babacar seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay su ko defee ñu daal di continuer ak euh, suñu làmb. Mhm. Euh, Ndiouga Dia sur site. Papa Sow. Mhm. nee la bagarre est mel ni loolu nga xamante ne mooy xeex bi diggante ñaari mbër yi que euh, le père Ndiouga ñu koy nuyu di ko ziar c'est moom parcelle la dëkk ah. euh, di bokk si ñuy encadré Modou Lo euh, kon yaakaar naa ne tamit bëree na parce que Fass la nekkoon fa la jóge dem dëkki parcelle kon defe naa ne su waxee ci combat bi rek war na ci mën wax parce que li tax mooy am na xam-xam bi te xam na ñaari mbër yi. yaa ngi dégg te loolu mu wax tamit lu am la parce que Ramatoulaye ci bëre dóor lañ jëma ah. bëre dóor nag suñ ko waxee faw xeex am mais dafa am combat yoo xam ne xeex mënu ci ñàkk parce que combat bii xeex mënu ci ñàkk effectivement parce que Papa Sow ku ko xam xam ne day xeex bagarreur la day xeex yaa ngi dégg Siteu tamit xeex kat la mm. xëy nag dañoo bokkul façon bu ñuy xeexe yaa ngi dégg bokkuñu façon bu ñuy xeexe xay na dóor une deux ci kaw Papa Sow lañ gën a gis moo ko utiliser lu bëri mais Siteu des fois bu la jàppee bu la koree des fois saa yu nga amee problème yaa ngi dégg dóor na sax mbër ci kaw mu daanu. Mm. kon sa veut dire que combat boo xam ne xeex mënu si ñàkk xeex boobu sax mën na jeexal kombaa bi sans départ. Mm-hmm. mën nañ ko mën na mën na fa jeexee mm-hmm. waaye loo ci mën a dégg kon xeex boobu mu ci wax dina si am te yaakaar naa ne ñoom ñaar mm, bëre nag maa ngi ko ciy xaar man waaw xam naa xëy bi dina ko ubbi mais xalaat naa ci bëri bi man sama bu ma doon natt tey dama naan bëri laa xalaat moom moo war a mën a jeexali combat bi ci sama gis-gis mais xeex bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que ñaari bagarreur ñaari bagarreur lañ dañu fa bokkul ni ñuy xeex comme ni ma la xeex léegi te ku ne am na luñ ñu la yebee Papa day jiital pie gauche Siteu di jiital pied droite boo xoolee nag ki jiital pie gauche su faa xeex ci euh, xeex bi ci kaw moom man na man naam buy dóori du jot ki jiital pied droite bi parce que bu koree nag la loxo droite am di libre. yaa ngi dégg. mais Siteu ama moom dañu gis pied droit lay jiital mais saa yu koree góosam bi da ko utiliser lu bare bare bare bëri mais combat la boo xam ne daal li may moytuloo ñaari mbëri parce que Fadam waxoon na ko fii kere si plateau. am na song boo xam ne Papa Sow bu ko songee Siteu Siteu mën na am ay jafe-jafe ci combat bi waaye Papa Sow tamit am na loo xam ne am na fa jàpp boo xam ne bu ko ko Siteu jàppee ci ngemb m it na am ay jafe waaye nag si combat lañu jëm nañu yónni yàgg. que le meilleur gagne tout est possible daal tout est possible bien <laughs> sûr. tout est possible ñu ngi noonu xam naa ñaari mbër takku nañ kon daal euh, du yomb te ñu ngi xaar avec euh, impatience. Mm-hmm. Hmm, combat contre Yekini Junior à l'eau. Mm-hmm. Diène boo xam ne ñu ngi ko waxtaan diggante Diène Kairé ak euh, Yekini Junior. Mm-hmm. mais ah comme ni ko yëglikaay bi xëy tey waxee nee na daal daa mel ni staffu Diène Kairé actuellement ñoom Siteu ak Papa Sow xaar xam naa ko fa daan. am nañ si droit waaye Yékini senior damay damay wax ne mbër mu mag la tey su waree bëri ak Diène Kaïré pour man sax bu bu dee logique lamb rek la ñuy wax moom mooy may Diène kayre sens kon Diène Kaïré moom euh, buy bu pour man su nangu te jël si ta ci beneen logique mën nañ ko fa dugal mais du ci logique sport. Mhm. bu fekkee ci logique sport bi ñuy def muy làmb ñu xool Yékini senior trajectoire am xool bu Diène Kaïré defe naa ne bu bu Yékini senior nangoo bëri ak Diène rek mhm. Diène bu bu fekkente ne moom bëgg na bëri. am na war na ko mën a jël parce que tey defe naa ne Yékini Junior nga dugal ko ci sa palmarès ci ci jéen ci jamono ji am na solo trop waaye nag pata sama gënal ñaambe la ma doon wax rek amatulaay kuñ ci tëj sa avocat daa baaxool bu ko neexee tamit moo ko ñu ne Siteu ak Papa Sow xaar dëgg la mi ngi noonu Babacar euh, Kaaw waaw Kaaw Gourdin. Mhm. <laughs> parce que euh, Albarka Kayré moom mu wax noonu xam nga moom dañ ko dañ ko laaj mu wax ci combat bi. Mhm. parce que Albarka Kayré dafa bëri caatu daaw a fal. bëri Kaaw Gourdin ñaari mbër yi bëri. voilà moo tax ñu ne ma maanaam tey moom xam na leen. Mhm. kon jàpp na ne ñoom ñaar xeex bi arrangé wu ci kenn. waaw euh, mais bon loolu mu wax nag moom mi ko wax xam naa. am na fu mu ko teg parce que comme bëri nag ñoom am na tam ci lu leer lu tax mu wax loolu waaye xam naa daal ñoom itam seen combat boobu bëree moom nañ ko ci xaar waaw parce que ñaari bërikat lañu Thiat Daouda Fall nag day xeex ku man xeex la mais nag xalaat naa itam bëri bi daal xalaat naa laa ciy gën a gis daal mm. waaw parce que du yomb. Mm-hmm. non non non daa mel ni temps yi arène bi yëngu ba bu baax Sadji la def dafa Sadji ñu naan Sadji Sadji bu baax la def. nii noonu. Mm-hmm. ginnaaw loolu yëpp tamit Babacar en ce na loo xamante ne arène nationale. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. mi ngi saccage des sièges et installation euh, de l'arène nationale. le CNG confisque le reliquat. le reliquat des lutteurs réparation. waaw confisqué defe naa ci tubaab mooy mooy téye. Mm, waaw maanaam nga am fa xaalis war ko jël ñu téye ko. Mm. Euh, li tax nag loolu am defe naa image bi boo ko gisee sunu làmb. Mm-hmm. da ngay xam ne image la bu ñaaw a ñaaw ñaaw parce que ay seize waxoon nañ ko fi chaque jour ñu wax ko. Mm. foo xam ne dañ ko defar rahmatullahi pour yow nga fay bii ñëw toog seetaan mais après yow nga seetaan am plaisir maanaam sa mbër daan wala sa mbër daanu ngay damm ay seize mënoon nañ sax xaw a comprendre tuuti ki mbërëm daanu ñu ne moom daa am naqar mu yàq kooku sax te kooku sax warta yàq. kooku wax waaw léegi nag ki am ndam moom di yàq nag. est ce que yàq moom yëfi nit la. man pour man nit bu nitee du yàq. du yàq déedéet surtout lu nga xam ne yow moomoo ko yow kese da ko bokk ak say moromu nawle. non ñoo parce que li nga moom doo ko yàq kenn ci ñoo ñuy def loolu doo dugg sa biir néeg ñu daan sa bër nga jàpp say teleeg di tojat xëy fekk seen kër ñu teg cin la di togg nga tuur ko doo ko def. wallaay wallaay doo xalaatoo loolu doo dem seen kër daan nañ suñu mbër tey nga ñëw seen kër fekk ñu teg fa ci nal reer nga jàpp reer ba tuur dugg ca kër ga di toj télé ya duñ def rawatina pëli doo fekk sa sa matériel benn doo ko yàq kon pour pourquoi matériel bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom muy intérêt commun di lu nga xam ne ñun ñëpp ci yem même pied d'égalité ñu tabaxal ñu ko yow nga di ko yàq ngir ne sa mbër a daan wala sa mbër a daanu du lenn nag loo ko mën a tudde lu dul reewande teg reewande nag buñ la ko jiiñee muy dëgg wallaay la si bisa ngi ñëw jàppal ne bisu ngi ñëw boo xam ne dinga ko bokk yow dong di nga ko wéetoo te di nga bëgg ku la ca fekk mu tëlal lool ndax réew amut njariñ yi ñuy def nii ci arène bi du dara lu dul ak réewande encore une fois sama bopp laa koy njëkke di ko njëkke ci yow wala ci suñ bopp lañ koy njëkke ab yar dafa am solo te ramatulaay bu ñu la nee da yaru muy dëgg mhm. am nga gàllaaj mhm. waaye da ngaa di muy dëgg mhm. wallaay doo ñax a ñaanal nañ ci bàyyi xel kon CNG loolu ñu def mm-hmm. man de maa leen ci encouragé mm-hmm. parce que mënuñoo ci supporters yooyu mm-hmm. xëy bu yàgg dinañ leen mën a identifier ba di leen jàppi ji waaye tamit buñ ko dee def noonu di ko fexe di jàpp supporters yi def loolu fexe tamit mbër yooyu ñu ñu ñu tee seen reliquat bu yàggee xay na dinañ ci am solution mais mbër yooyu tamit nañu gën a communiquer ak seen supporters yi xamal leen ni ñoom ñoom ñu leen di lor parce que mbër mi bëri préparé combat am daj ci lu ne mm. daj ci coono bëri ba pare war a mar di jot menacé mu war dem seen see jël reliquat ñu ne ko doo jot reliquat ndax nangam est ah, di ko jàppale doo ci lépp nag muy si chauffeur yi mhm, ah? mhm. muy ci arène bi mhm. fépp foo nekk rek waneel discipline defal preuve de discipline discipline loolu c'est mmh. intéressant mmh. nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax mmh. ñu daal di jàll ci journaux boobu nga xamante ne mooy euh, record Alioune Seyde avait un objet qui m'a blessé ah, loolu la wax ci record ci record Alioune mu ne daa yoroon objet bu ko blessé ci biir dafa yoroon benn maanaam benn euh, moo xam bant la wala benn affaire daal boo xamante ne moo ko mujjee kon daal du dóoru kese loolu de doy na waar man daal li xam mooy loo ci mën a dégg. xaw ma objet la amoon xaw ma amuloon objet parce que li ma xam mooy arbitre balaa soufflé. dañ leen def li ñuy wax passe visite tàllal leen seeni loxo nii aj ku ne mu xool la juste waaw mbër la ndax niin nga wala niinoo yor moom doo waxaale wuñ ko waxu niin sax dañ duñ la ko baal ah, kon est ce que nañ la bàyyi nga yor dara sa loxo nii ba war ko mën a dóor sa adversaire moom nag moo ko wax moom la engagé mm. waaye ñun daal mosuñoo gis loolu ah, waaye dama xalaat ne daal euh, Zos na féliciter Alioune Seye te mu dem liggéeyaati comme daa bëgg a des ci làmb ji. Mhm. loolu moo ci des mais euh, dafa yoroon objet yooyu pour man sax est ce que loolu wax ju waratee génn la. jaratu ko bëri ngeen sport la gagné na la nekkal un sportif de nga félicité ko après yow nga dem liggéey xam ne da nga doon gagné ay nit après ëllëg mën nga defarwaat ni war gagné bien sûr loolu dafa am solo parce que tey mu ne boo gagné da ngay ak humilité mm-hmm. mais soo ñàkkee da ngay ak dignité Mouhamed Ndao Tyson loolu dafa jar a xel mm-hmm. euh, ko defee ma taaji ma bàyyi la rek nga tàggatoo ak suñu mbokk di ñuy def ay signes. <laughs> la ñuy liggéey moom c'est très normal. Euh, di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre rek encore une fois di ñaanal ñëpp jàmm. di remercier tamit ku mel ni tous les promoteurs sax laay wax. mais Pape Abdou Fall tamit dafa demal dafa defal démb presse bi nga xam ne ñooy presse en ligne bi nekk ci euh, lamb ji di reporter lu am mhm. solo te loolu dafa jar a wax parce que dafa jël ay gilet yoo xam ne moom moo ñu waxoon te nañu utal ay gilet. Mhm. yàlla dogal mu def ko démb kon defe naa Pape Abdou Fall tamit ñu ngi koy remercier di ñaanal di ñaan yàlla journée bi nga xam ne moom la jëm si dimanche mhm. mooy si ta Papa Sow na ko réussir ci côté yépp nag di ñaanal bépp promoteur tamit journée boo dëgmal yàlla na nga ko réussir barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais di ko remercier vraiment ci sast bu noble boobu nga xam ne def na ko à travers ñun parce que tey loolu xëy na ñun ñoo ko waroon defal suñu bopp wala suñu ay patron defal ñu ko mais moom moo jël xaalisam defal ko vraiment kon Pape Abdou Fall encore une fois ak staff bi muy liggéeyal loolu lépp merci beaucoup ñoom aari ak tout ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaaraamal mhm. di la kontaane di ñuy man sur mu nekkoon ci caméra bi mhm. ak hélas mi newoon si montage bi di jox gars yi suba dig daje rek incha allah rabbi rahmatullahi <laughs> mi ngi noonu lépp merci à Pape Abdou merci à tous nos internautes merci à tous les Sénégalais et Sénégalaises. Ah, mhm, di di mhm. ñaanal ñëpp jàmm et puis euh, on vous souhaite une euh, très bonne journée.